yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service du Saint Coran. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di am mbégte bis biñ doon waaj di bis bu rëy bi nga xam ni jaamu yàlla yi jullit yàlla yi ñoo ci war a wane seen cofeel ci alquranul karim. waaye wane seen cofeel ci nan la ñu war a taxawoo diine ji boobu bis ma junj mbokk yi mooy ban mooy bis bi nga xam ni fan yëpp yéen ngi ko gis ci presse bi réseaux sociaux yi télévision yi ak ay yeneen canal yoo xam ne ñi ngi ciy jaar mooy bisu wa jaahidu jël sa alal def ko ci yoonu yàlla ngir lan gën a taxawal l'islam mbokk yi ni ngeen ko gisee nii ci ginnaaw ñi ngi fii ci Grand Théâtre suba incha allah fii ci suñu gannaaw dana fees dell ak ay nit ay nit ñan ñu fees dell ak cofeel ñu feesal seeni poche ak fas yéene dimbali daara dimbali alxuraanul karim organisation bi lépp aw na yoon installation bi tegu na dañuy ànd rek ak ñi nga xam ne ñoom ñoo amee loolu ñu wax ñu dëgg-dëgg euh, mbir mi euh, fan la toll kon euh, sama man yaakaar naa oustaz imam wax nañ ko léegi yaakaar naa lépp pare na. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi. ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, ñu ngi fii ci Grand Théâtre di nekk ci dernier réglage yi ci bis bu màgg bi nga xamante ni moom lañ doon moom ngeen doon suivre ci télé yi ñu ko doon yëgle mu jëm ci dajale ay koppar pour daara ji mën a am fond boo xamante ni da ciy mën a sukkandiku pour mën a dox fi mu nekk ni nag lu aju ci wàllu lu aju ci wàllu organisation bi lépp ji yemb na ci côté technique ci côté logistique ci côté matériel ci côté personnel bi nga xamante ni ñoom ñoo fi war a nekk ci côté accueil yi ci côté protocole ci côté sécurité ci côté couverture médiatique lépp loo xamante ni loo aju ci matuwaay yi ñu war a jël jël nañ ko ba bis bi mën a jàll ci anam gu goo xamante ni anam gu mucc ay lay doon. Euh, sas ndax mën nga ñëw euh, dikkalaat ci euh, kan moo amee amal bis bi ak lan moo tax mu amal ko. waaw bis bi de ki ko amal kenn la ci ñenn ñi nga xamante ni yàlla baaxe woon na leen ñu daar kokki jaar daaray kokki màgg am yëg-yëgu ni ndekete ñun am na bor bu ñu lebaloon ñu ci ñu ñu ñu ciy ñot ñoti pour jéem a fay donte sax fay gi ñoom tàmbali woon nañ ko waaye nag dañ cee yéene. da yiw wi dañ cee yéene jullit yi ba tax ñu ne nañ ko def ci façon boo xamante ni dana gën a yaatu ba képp koo xamante ni yàlla dimbale na la nga mën a dugal sa loxo ci yiw yi nga xamante ni ab ab dawal la ab dénkaane la ba bu ëllëgee yowmal xiyaam boo demee fekk ko fa. bu buñ toppee presse bi ci réew mi gis nañ ni ñëpp ñu ngi koy waxtaanee kon suba mbooloo mu yaatoo yaatu macha allah mu takku la ñuy xaar fii ndax yéen organisation pare ngeen pour dékku ñëpp. waaw ci côté yi nga xamante ni jot nañ ko am. par rapport ak euh, émission yi nga xamante ni jàll na ci télé yi ak communication bi nga xamante ni def nañ ko ñu bare ñuy euh, contacter di ñu xamal ni danañu danañu teew ci bis bi ñu ngi ragal sax salle bi fees ba jëloon nañ matuwaay ba wut beneen bâche boo xamante ni dana jël 1000 places pour en cas où bu fekkente ni euh, salle bi fees na ñu mën a dem foofu nga xamante ni waajal nañ ko ci ay chaise waajal nañ ko ci maanaam nekk ci bërëb boo xamante ni bu jàppandi lay doon en même aussi tamit mu waajal ko ay ak ay écran ba ñuy nekk ci salle bi lay nekk foofa du leen raw. kon daal suba xaalis bi dana bari. am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar am nañ ya am nañ ci yaakaar waaye nag euh, li ci gën a am solo mooy jullit ñi xam liggéey bu rëy bi nga xamante ni daaray Koki mu ngi koy liggéey. jërëjëf euh, oustaz organisation euh, sëñ Cheikh yaakaar naa bu ñu déggee oustaz mooy li waroon a yemb yemb na li waroon a jekk jekk na nit ñi la ñuy xaar. pare nañ ñun pour ànd ak ñoom gunge leen ana lan mooy sa yëg-yëg fii ñu toll ndax suba ñoo ko war a seq incha allah. asalaamaaleykum xaaj ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp macha allah ni nga ko waxee ah, ñu ngi fii tey ci grand théâtre ah, war a suba incha allah ah, journée de fonds pour solidarité pour daaray kokki levée de fonds pour autonomie di daara de kokki wax dëgg yàlla ñu ci daw ay weeri weeri weer dugg nañ fa fu ne wax ak jullit ñi waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom xamal leen projet bi nga xam ne alaaji As Ndaw moo ko initié macha allah bokk kenn ci nga xam ne ci njabootu Serigne Ahmad Saxir loola nekk ci ku fiir ci daara ji ko bëgg daara ku bëgg daara kokki rawatina gi nga xam ne fa la génnee euh, bëgg fee jëlee ak yalwaan bëgg autonomie daara ji tax mu initié projet bi ñu tuddee wajaahidu wajaahidu nag dafa am àllu ko jiitu mooy suñ borom fu muy wax ne infiru xifaafan wa siqaalan doog cee teg wa jaahidu infiru nag mooy daw leen wagasu leen yéen mag ñeeg xale yeeg ñëpp daw bu ngeen dawee fu ngeen jëm wa mooy ngeen farlu làmb seeni poos fii sabilillahi ci jëmale ko ci daara fii sabilillahi jëmale ko ci jullit yàlla yi fii sabilillahi jëmale ko ci yoonu yàlla donc kon loolu la ñu war a taxawal comme ni nga ko gisee xaaj njuga macha allah euh, euh, organisation bi yëpp gis nga mat na ba tey lañ doon ko accomplir yu sew sewaan yi des fii ci grand théâtre suba rek incha allah ñu fa yéene démarrer liggéey bi ñaan sun borom subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq liñ ciy séentu ci un milliard bi ñu weesu ko dem ba ci ay trois quatre loolu la ñuy séentu te am nañ ci yaakaar wa ma zalika alallaahi bi aziz kon ñu ngi woo mbokk jullit ñëpp ku ci ñëw ni nga ko waxee sànq dégg naa la nga wax kon na poos yi fees dellu ñu ñëw toog jatu bu ñu ne hope heure levée de fonds bi jot na rek ñëpp gaaw feesal kees gi incha allah ñu weesu milliard bi di dem daaray kokki incha allah am woy boo xam ne daara am woy boo xam ne dootul tàllalati fenn loxo la fay incha allah société yi ñu koy def mu yor dungu dund dongo ya seenug faju seenum njàng seenug lépp tabaarkàlla jërëjëf xaaj jërëjëf euh, Serigne Cheikh euh, wax ji euh, yemb na macha allah defe naa ni waxkat baa ko waxoon mooy dëkke may nit ki jën jàngal ko nu ñu nappee moo ko gën loolu la Serigne As Ndaw def mooy dëgg-dëgg nag yalwaan ci daara kenn du ko ci jële naam waaye buñ ko organiser mën naa juraat leneen takat jàngat bi eh, Serigne Cheikh moo di Serigne As Ndaw mi nga xam ne moom moo jiite yëf yi koo xam ni tabax nga daara ba mu jekk fële ca Kaffrine ñi ngi koy gis à travers euh, euh, daara ko Koki TV def ca ay ndonga yor seen lépp ustaas ya nga dëkkal leen ba far sax jox leen oto kii dëgg-dëgg bu tegee projet war na ko mën a gàddu waaye nag yéene nit ñi yiw ni kaay leen nu bokk ko ndax jullit day bokk ak moroomam am yiw looloo tax mu taxawal li kon rendez-vous bi suba la le premier avril 2023 fii ci Grand Théâtre na naa sëñ Cheikh jërëjëf euh, ni nga koy junjee leer na euh, ci alaaji As daara ji nga xam ne fa la tabax fële ca Kaffrine dongo yi di jàng duñ fay dara comme ni ko kokki di defee mu ciy def alalu boppam waaye As dafa weesu loolu ndax dafa joxe benn exemple boo xam ne ku ne war nga kaa roy ci moom mooy dafa nekk tout tànk nekk ca daaray kokki eh, ndey daaram bi ko daan tibbal añ mu tabaxal ko kër gu mucc ayib waaw ba tey ji bu demee kokki ca kooka lay dal ndeyu daara ba génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm waaye njabootam ña nga fa xam ngeen kon kooku yàgg na sonnee daara nekkoon koo xam ne maanaam léppam sëriñ Ahmad saxiir la waaw moom dafa tàmbalee ci sëriñ Ahmad Saxir loo yem ci sëñ Ahmed Sakhir loo kon bu ñu ko gisee mu taxawal lu mel ni dañ naan tawféex bu ko yàlla may la ndax mënoon naa jël un milliard bi ni ko waxee joxe ko ne daaree ko ki dem leen waaye dafa ubbi buntu àjjana buntu àjjana nag juróom-ñett la xaaj njuga buñ ko ubbee dafa am ñu yàlla baaxee jox leen caabi yi ku yàlla baax nga jox caabi yi da nga koy séddale jullit ñi kon nag bu la yàlla na natoo bokkoo ci ñu yor caabi fexeel ba bu ñu ubbee bu la kenn njëkk a dugg. jërëjëf euh, Serigne Cheikh bu ñu ubbee bu la kenn njëkk dugg waaye boo duggee tam nanga nga am fullaak fayda leget gooyam rek sotti fa la nekk sa poche ndax loolu moo lay may yiw fii ak yiw ëllëg kon mbokk yi bunta ngi ubbeeku na. taw bi taw na bàq bi tooy na li des mooy ji ku ji yàlla dana ko saxal kon nag yoon waa ngoog buñ fi ñëwee daal. nañu fexe li ci poche yi na fi des waaye bu ñu départ ca kër ga bu ñu fa bàyyi dara mbokk yi léeg-léeg nga lamb mille francs mu ni du fa dem dalaa bañ a xañ dalaa bëgg a xañ yiw léeg-léeg nga lamb 5000 mu ni du ma dem dalaa bëgg a xañ yiw boole ko moog 10000 ak i magam ak ñoom ñëpp yóbbaale ndax yiw yi nga bëgg moom nga leen bëggal ñoom ñi ca gaal ga wala ca pochette wala ci chèque yi li ci banque yi nañ ko génne banque fii banque ëllëg ko gën rendez-vous bu suba la mbokk yi asalaamaaleykum yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daar Daarakoki TV la chaîne au service di Saint Coran